yàlla dogal na nag maag sëñ jiiri ñam mi sax daan nañ ko teewee liñ lay jëkk a jéggulu mooy guddee gi ndax man Touba laa gontoo di dogaag si sëñ jiili mii fa la ma bàyyi waaye lii rekk a tax daanaka nu ñëw ndax fi mu ne nii moom sa dëkk ba bële di Touba neex na neexaay boo xam ne fi mu ne màggal gi moom tàmbali na fa moom noo ngi lay siyaar nag di la ci bis bi jël siyaar bi teg ko ci loxo sëñ Jili Ñang mu jàll ci sëñ Moustapha Kane mii nga xam ni amoo ko ñaar mu jàll ci képp koo xam ne mi ngi ci barab bi rawatina jàngkati xasida yii nga xam ne maak ñoom ñoo bokk écrit te nuy sag njaboot yow par force da ngay bëgg sëñ Touba par bis bii nag léeg-léeg sax nga gis ku ci wax loo xam ni du ko comprendre xam nga julli géej gii doo ko gis ci xasida ak mooy bu nekkul ci mu xaddimaat Sëriñ Tuubaa defu ko ci benn màcc mu waaye moo ko nettali boppam waaw bi mu ñëwee ci ngan gi ci Daaru Salaam daa woolu sëñ daam Abdourahman Lo ne buy ñëw na indaale sëñ Basiiru bi sëñ daam jóge ndaam heure bii biig rek maag sëñ Jili Ñang mi ñu ngi diggante ndaam ak Daaru bi sëñ daam ñëwee ndaam jógee ndaam ñëw Daaru Salaam mu ne ko Abdourahman xanaa na moo ma woon mu ne ko ah kay waaye danga ne woon dinaa la fekkaat fii ma la teg ñu ko Abdourahmane demal su may su may su ma jógee fii falaay aw bi mu ñëwee nag la ne ko ginnaaw yaa nekkoon ci li ma neex muy alxuraan kaamil bii maa ci doon jàng ci tukki bi rafaate naa la génne der ne der bii laa doon jullee maa la ko rafaatale génne kurus génne satala satala gi bërki démb dong bi ma demee ndaam génneel nañ ma ko lu ne wan ko ko ba yàgg génne mel mbubb ne ko mbubb mii nag keroog bi may julli ci géej gi moom laa sol mag ñi daw wër ko sëñ daam ne ko ah Mbàkke dangaa julli ci géej gi mu ne teg ba yàgg na ko waaw Abdourahman julli naa ci géej gi sëñ bi fi mu ne boo ma ne woon waxtaanal ci tasawuf da nga may indil problème xaw ma ko sax boo ma ne woon waxtaanal ci sëñ Tuubaa ak dama naan la bu yóbboo nga woo sëñ Mbàkke Abdourahman wala yow mii man la defal ko sa bopp ah sëñ Abdou Xaadir suñu yaakaar tey ak ëllëg sëñ Jili ña ngi nee na sëñ Abdou Xaadir nee na julli gi sëñ Tubaa julli ci géej gi nee na julli gi sëñ Tubaa julli ci géej gi dafa xam sëñ Amsatu dafa xam sa Amsatu sëñ Amsatu Jaxate yar bi ko sëñ Tuubaa yar bi ko sëñ Tuubaa yar ak ragal gi mu ragal yàlla ak ragal gi mu ragal ko ko nettali sëñ Amsatu Jaxate ko nettali sëñ Abdou Xaadir te sëñ Abdou moom sëñ Tuubaa ko nettali nee bu dul woon loolu nee na bu dul woon loolu day jàpp ne murid yi dañuy wax rek day jàpp ne murid ñoom ñooy wax nii rek ci gëm sëñ bi rek bëgg ko ne moo tax mu gëm ne moo tax mu gëm ne sëñ Tuubaa jul na ci géej gi sëñ Abdou Xaadir te fan yi fi ma toll tukki bi damaa ñor bato bi yóbbu sëriñ bi naissance bato bi sax dinaa ko nettali fii tey bato bi mu ngi tudd ville de Pernambouc ay brésilien ñoo ko moom marine marchande ñoo ko moom ki ko doon dawal mi ngi tudd Roux bato bi ñu ngi ko liggéey 1882 mi ngi guddee guddaay bi 94 mètres la yaatuwaay bi 11 mètres 07 la yaatoo bato bi zone brute la 1000 chevaux la 8 8750 tonnes lay peser bato boobu. mi ngi suux ca Marseille en 1907 ci la bato bi suux bi sëñ tubaa di ñëw jéyeen at moomu ci la bato bi suux ruks mi yóbbu sëriñ bi tamit ci bato boobu yàlla dogal na bato bi delloo si sëriñ Touba ñu koy wax Ville de Mazio moom moo ko dawal ndax booba mi ngi mel ni tata yi léeg benn tatapaan ñu jël beneen chauffeur jox ko beneen bokkut ak ba mu waroon loolu tax ruk su bind ci sëñ Touba loo xamante ne nii archive yaa ngi naan te démb rek sëñ jiili ñu ngi biir kër sëñ Abdoulaat moom sëñ Cheikh Gaynde faat ma di waxtaane màggal gi ne suñuy archive war nañu ko joxaat parce que entre Conakry ba Gabon bu dul lu sëñ Touba bind ñu dégg ko ci sëñ Mor Lamine Diop Dagana tubaab yi dañoo denc arsif yëpp ndax lan kenn du wane sa defet mu daal ne sëñ daam bi may julli ci géej gi de li ko waral ñoom bi gaal gi dawee ba séenatunu ndakaaru ndekete ñi ngi taxaw ci pexe ma bañ a julli moo tax ñu tere ma julli seen biir gaal googu te mbaa xam nga ni bu faatoon waxtu wi du wàññi ci màggal gi dara du tee sëriñ Saliou di Serigne Saliou waaye daa toog ba yàgg daal ne ko Abdourahmane wàcc googu ma wàcc géej gi ana lu ngeen ko jiñ mu ne ko Mbàkke xanaa wilaaye mu ne ko mukk Abdourahmane jom ak fit ak ngëm biñ ko teree gaal gi te sëñ Tuubaa boo ko bëggee tere julli xam nga loo ko jëkk a tere jàpp sëñ Moussa Ka nee na mësta tiim mësta dox ni maa moom fu mësa romb ñëpp xam ni mooma mu daldi sànni der bi ci géej gi tubaab yi ne sañu koo fekk mu jàpp ba noppi jàpp bi sax jéem nañ koo gàllankoor daa jàpp ba noppi rek ndeysaan daal di taxaw waaw jigéen la njëkk a yebal ne ko laal ko mu ñëw ne ko noo mu ne ko Ahmadou noo sant mu ne ko Mbàkke foo dëkk mu ne ko tuubaa bisu tey bii la di may nettali tey bisu tey la bu fekkonte ne julli juróom day xari coggal ñaari rakkay ndar ñooy ñooy xar yi jur coggal gi. bu doon julli juróom doomi aadama la laa wax ñaari rakkay ndey ndar ñooy aadama ak awa gis nga bi mu wàccee ci géej gi sëñ sàmbay nee na gaal géej wàcc ba ci suuf mbaa géej gi jóg waaye moom du tëb te ca kaw la ne mu ngi mel ni yow mu ne ci étage bii soxla ci suuf ah tubaab yi bind nañ ci archive ne ñoom ne dégg nañ daal bi mu wàccee ci ndox mi dégg nañ benn baat boo xam ne dañ koo bind après lañ ko laaj olof yi mooy der bi bu la gi raw. der bi bu la gaal gi raw mu julli sëlmal yéeg ci géej gaal gi. am na beneen pexe bu ñu def bu gën a garaaw xam nga ñoom dañoo bëgg mu faat waxtu boobu làbbe bi tudd Antoine Marie et moo dugg ci xërëm yi ne bu ngeen fexee ba mu faat waxtu lu ngeen ko jéemal mën naa sotti def leen lu naqar yàlla te yàlla bokk na ci faratay bis bi li ko gën a metti mooy doomu aadama bu faat waxtu ñu ne des na gee gee ñu ne comme wàcce nañ ko mu julli nan bàyyi ba guddi gi jot balaa gée di jot ñu wëndeel bato bi fay làmp yi du xam fu penku bi féete barke Seexul Xaddim def nañ ko fay làmp yi wëndeel gaal gi nee na dañ ne kamaj làmp yi rek nee na sang bu tedd ba ca Madina Seydina Muhammad ne ko Ahmadou mu ne ko labbayka mu ne ko gaañee julli ñëpp penku penku bi la ñuy dàkk mu ne ko waaw mu ne ko yow penku bee lay dàkk foo jublu rek ma warangi kaaba gi mu tolloog yow sëñ Moussa ko wax na ko de njool màkkaa ko may darajay sahaaba xibla gu Bamba jublu muy kaaba razaxtani hajja ilaya tayya wa sawra war jawara fii ka iya mu ne keroog la romb waa Indorloos machine ba rulle ba weesu Mandarloos Abdoun la capitaine Blé moo ko teeru ba woo Angleterre laa kii tuuru mooy english yoor yoor la gaal ga teb bi jëm Conakry bisub dibéer noon yaa nga naan ngiri ngiri ca tàkku saani suuf gaal ga koste dun buñ naan tubak marañ yay konte foofa la Bàmba njëkk a gisee kurmaana ak timileeku gurbo ñu néewi maana ñu ñàkk solo lool dem naa Gabon sëñ jiili ñang dem na fa seeni nit ñu gàtt lan mais am na dëkk boo xam ni ndeysaan bu ñu gisee doomu aadama nii lii seen problème mooy nan lañ koy raye rek reere ko am na ci Afrique centrale barke Cheikhul Khadim sëñ Moussa Ka moo ni mooy xeeti ninki nanka ya ñoo daan def yaramu neen di yàpp nit ña tubaab bi boo gisee mu tànn Afrique centrale mooy dañ ne nañ ko yóbbu ci un forêt vierge foore boo xam ni climat ba du ko mën a noyyi kenn mënu faa dundu bi mu wàccee Libreville ñu ngi ko awale ci embarcadé ba en face palais bi nga xamante ne Omar Bongo moo ko def foofu enseigne jili ñu jële ko foofu indi ko mosquée centrale mu nekkee Carrefour Léomba ñu jële ko foofu daldi di koy indi montagne sainte bis ni tey talaata waxaaba li waxaabu fi sulaasa maa yuxrijuna xasanatan fi salaasa ñu jële ko foofu daldi ko indi Port Gentil ne dañ ko sànni ji fañ ko sànni woon nag yàlla dogal na sëñ sëñ sëñ sëñ sëñu sëynu dafa waroon a bokk ci sart yoonu murit mbàkke mbàkke bu jàngi ba ñëw ñu ne mokkal na lépp ñu ne na dem Gabon te bu demee Gabon nag jàll maa yomba foofa kenn du fa dem ñëw di fowe yoon wi gis nga ma nettali benn histoire rek bàyyi sëñ Modou Lo Dagana fa la ko fekkoon sëñ tubaab Touba bi dem nañ ba bind lettre maam no ne ko utal beneen doomu bàyyi sa mag jooju ñu indi woon fii ñun faat nañ ko te booba ñoom preuve bi ñu am rek ne faatu na mooy fii àll bii mu dugg ku fi dugg waroo fee def ñaari at te noyyiwoo kenn joxu la fi lekk kon nekkatoo période boobu nag la sëñ Modou Lo Dagana war a jóg wëri sëñ Touba nee na bi may dem Gabon xawma fu ma jëm bi jëkk ki may seeti daal am na lu ñëw yee ma ne ma fekki ko fa mu nekk joxaat ko sa bopp soo ko defut loo jaamooti yàlla yàlla du ko nangu mag ñi ci seen pas-pas mu séddale alalam yeewi ay soxnaam ne leen su ma ñëwaatee ku ma ci fekkul amoo borom kër bu ma ko yàlla dogalee ma jëlaat la soo leen ma tegatee bët damaa gis sëñ Tuubaa awaay gaa yi gaa yi faaw sëñ bi jaral na loolu sëñ tubaa da jaral bakkan soxna Xadi Njaay agsi na sëñ Seynu damaa jóge Gabon ñëw sëriñ Asan Mbàkke yónni ma ci mbàkk yu fay mbàkk yu ne ma da ngaa dem Maayomba ma ne ko dem naa Maayomba mu ne ma foofu di góor dëgg fay dem dafa sori sëñ ko som sëñ Muntaxa bi nu toogee maayom ba dama ne ko Mbàkke xamul ma métti mu naa ma ne ko fii mënoo koo misaal nit di ko ko wax nii rek ci ay rajo ba mu comprendre ko ni affaire bi demee dem rek ñun añ bañ fa añ bañ fa taal keroog barke sëñ Touba ñun a ñoom sa ñàkk saasaam bu ñëpp a ci bokk yam daanaka añuñu ko ndax jooy mu ne ma man mii di wax ak yow mbàkk yu ne ma sama baay moom la sëñ Mourlo Dagana nettali ni mu seetee sëñ Touba sëñ Mourlo Dagana at la wër sëñ Touba at dégg nga ni ko sëñ Moussa ko waxe xëyoon na kokk guy bisub talaata nam man ci géej gi bañ naan xatmaata mooy deena ba weer wa dellusee ca déwén saak bis ba lay deera seeru Bàmba ngir pas-pas ba mu jaar Banjul déglul dëkk yi jàll woy Sikicoor jaar Karaban woy Séeju joolaayu buur joxal la manding la dox cib gaaw romb Sierra Leone fanaan fa gaaw xëye ba sarlong ba jàlli biri bi laaj Serigne Touba weesu arabi dox mën a róoya jaari Grand wàcc Grand fanaan likarlio xëye bulaama romb kap dimbal ma di seen dunub tëbuk te naan làmbal ma xëye fa jëm Cameroun ñañ kormaana ak timili ko gurboo ñu néewi maana mu romb leen tefe su jëm béséréwali laaj sëñ Tuubaa ñu naan ko baafuli mu wéy Grand bawoo Aboja tefesu weesu Abidjan wër suuf sa dem nañ fa maag dox akara te fesu weesu wiinda laaj sëñ Tuubaa ñu naan ko wiida mu war ca gaali géej ya jaari Lagos jaar ci réew ma ak saa Cap Koosé mu romb leen dem Bata dem Douala laajte doomi doomi astawaalo Porto Novo ak Cotonou Siti Kama romb na leen wàcc Gabon ñu naan Koma mu ne keroog la laaj Seex Bamba nam sa kayita mu naan ko wéy na Congo naa la seto mu ne kookaa tabax sax taaxi Serigne Touba fa daari mar naan kii rawoon fa gaaya mu daal di dem Kabla Pisa laaj Bamba ñu naan ko yàlla jàng wuy Mayumba sëñ Mourlo daga ne lu may yóbbu Mayumba ñu ne ko am na bato bu fi aw mu doon clandestin burle bato bi amul ay këyit dugg ci biir gaal gi ci biir gaal gi la dégg ne passagers yi war a wàcc ba dëkk ba ñu jëm. xa maara biñ fi jëlee woon Sénégal foofa lañ ko faat te war wàcc mi ngi mel ni géej gii ñu ne waa yoof ñooy wàcc dañuy xool sa dentité boo dëkkul yoof sa ñoo wàcc te moom war naa wàcc xam nga nu def ci ma ci pour ma lay wax ne la murid yi yàgg nañoo am technique technique daa ñëw ne médecin bi mu ne mun ne ko man damaa feebar médecin bi ne ko lu tax waxuma ko boobu ba léegi médecin bi ne ci gaal gi am lii jël ci benn comprimé mu wax li ko dal bu ci naan ñaar de sëñ Modou Lo daga na lu làqatu boîte bu def vingt comprimé ak nangam mu mëq lépp dal di daanu gémmiñ gi fuur ñu ne eh kii di dawaat ak moom ay sept cent kilomètres. ou bien ay 500 kilomètres jëm ak moom ay ay ay Libreville erreur la bu deewee ci gaal gi dañuy am problème nañ leen ko wàccee dëkk bii ñu jëm muy Mayumba mu wàcc ñu téye ko ci poste de santé bi di ko faj ñetti fan mu wér muy xaar gaal gu ko fi fekkaat yóbbu te ndeke moom xamul ñu ne at la wër sëriñ bi mu mel ni tey bu fi jóge woon le 21 septembre 2000. vingt le 21 septembre 2021 lay doog a gis sëriñ bi ci kuñ ne la làqu na nekkatul le marabout Cheikh Ahmad Bamba n'existe plus bokkatul mu daal di ne médecin bi damaa bëggoon nga may ma ma génn doxantu ndax li ma tëdd daa daa daa yàgg médecin bi ne ko bul sori de mu génn di dox Gabon ñun ñii ku fa dem dañuy xam ne bokkoo doo Gabonais parce que dañoo gàtt te sëñ Modou Lo Dagana wax nañ ne ñi ñi taxu taxu ko woon a gàtt ku amoon taxawaay la am sénégalais bu ko romb daal di koy nuyu kooku mooy Blaise Diagne moo nekkoon fees de chef de poste bu Lodima bu après lañ ko jëlee Lodima indi ko Mayumba poste douane Blaise ne ko salaamaaleykum sëñ Modou Lo Dagana tiit daw nuyu ko xam nga géej un an déggoo koo waxal olof mu ne ko yow foo jóge mu ne ko Sénégal mu ne ko yow looy def fii mu ne ko man damaa feebar ñu wàcce ma ci benn bateau mu ne ko eh yow yaay mooduloo sa rapport jox nañ ma ko démb wax nañ ne ma yaa un sénégalais bu ne ci dëkk bi boo xam ne dañ koy faj foo doon dem suñ Modou Dagana daal di jooy ne ko man daal sama sëriñ lañ fi indi nee nañ dundatul waaye bu ma ko gisul du ma dellu. moo tax màggal gi war ñoo jaral bakkat gars yi ñun dañuy font rek mu ne ko kuy sa sëriñ mu ne ko Cheikh Ahmadou Bamba la tudd dëkkoon Sénégal Blaise ne ko yow xam naa sa sëriñ dama koy dégg nag fa mu ne ca ñax ma dafa sori xaw sax mi ngi dundam déet waaye nag mën naa laa joxoñ ñax ma ndax moom ku mu woowul sañoo koo fekk foofu ah tubaab dugg na ci ñax moom ba yàgg daw ak xelam ax ah, lu badirin ñoo lay dàq barke Cheikh Ahmadou Bam ah sàmbalaw bi mës naa ñëw ne sëñ Tuubaa dama lay wéttali sëñ bi na tekk di ko xool ba yàgg mu ne ko mbàkke sa wéetaay bii sëñ bi ne ko xanaa xamoo saa yoo ma jegee damay wét mu ne ko lu tax mu ne ko ñi may wéttali bëgg noo jaxasoog yow boo ñëwee dañuy dem lu badrin kooku xamuñu ko sax yow mal xiyaam rek lañ koy xam daam rek lu may leeral daal di tëdd wàcc kaddu mu ne ko yow nag mën naa laa wan fa mu nekk àll boobu it wóorut dugg sëñ Modou Lo daga ne lu leer la ko bles Diagne wax ne ko soo duggee génnaat ma xam ne génn nga boo génnul ma ne la malaat bi fi nekkoon faatu na un forêt vierge sëñ Jili Ñang mii dem na àllu Gabon àll boobu kenn mënula koo wax nii non non dem rek gis parce que sëñ Tuubaa bi dañ koo sànni ji woon sëñ Tuubaa dañ ko parce que dañoo bëggoon mi ngi frontière woo ak Congo Brazzaville ak Luango rab yi nga xamante ne ci dex googu lañuy naan si te sëñ bi heure bii de heure rab rab yi ñu ngi naan si une heure deux te xam nañ ne sëñ bi dina wàcc foofu uti ndox ndax day jàpp. ñu ne pour bu ko fi rab yi fekkee nañ ko for intention boobu la tubaab yi amoon xam nga lan la ko sëñ Modou Lo da a wax ne ko yow wan ma rek Blaise Diagne dugg sol tenue douanier ne ko topp ma dañoo interdit woon nag ku tudd ci dëkk bi ndax dundatul woon maanaam mu mel ni ñu jóge fii di dox sëñ Mourlo Dagana nee na ngir ñu xam ma xàmme fi may jaar damay damm ay bant pour buñ bëggee génnaat belees dem ba yàgg ne ko mënatumaa am mënatumaa dem mel ni taxaw fii joxoñ ko pikin ne ko gis nga xur wale ah boo ko rombee ci géej gi nga jëm foofa daal daan nañ ko fa dégg man nag maa ngi lay xaar fii sëñ Mourlo Dagana daal di pénétrer àll bi ñëw na ba yem ci sëñ Tuubaa te xàmmewu ko aw ëkk la ko tegoon ndax ndax lënd yi taq sëñ bi ah yoon wi du yoonu yoon wu ñuy neexale kenn nee na mu ne xëy na neewut wet gi naa génnaat seete beneen bor waaye ba yàgg mu yëkkati xasida ak lam yëpp bi mu ñëwee ba ci xuwa nabi wa rasul wal xalil waawal abibu wa imaamu wa dalil ji nee na géej gi daa yëngu fi ma taxaw yëngu nee na ma ne moo Mbàkke mi ngi di sëñ tubaab moo wax wa dalil sëñ Modou Dagana nee na ma summi sama mbubb di ko upp gunóor yi ko taq ak yëpp di naaw ma koy upp weyu gudd lool mel ni weyu Sëriñ Saaliw bopp bi doon njañ nee na mu toog ba yàgg ni ko Modou Lo ana waa Sénégal moo tax réew mi bu nu amee jom mbaa nu am ak rasu tuuti waru noo tudd sëñ Tuubaa di tudd kenn Dakaractu bu leen ko dagg de wane leen lépp wax nga dëgg de barke Seexul Xadim Modou ana ana Touba sëpp seef bi rëy na de keroog sëñ Moussa Ka nee na sëñ Tuubaa big na ngir làkk olof gim gëj dégg te tey am na ku ko waxandoo wax na ko de sëñ Musaa wax na ko de keroog la ba njëkk a gis minari jàll buy wax olof te naan dama dëkk Sénégal toog ba yàgg ne ko ana Seex Anta ana Mamadou Moustapha ak Mamadou Fadal di ko laaj rek sëñ Modou Lo Dagana nee na maa ngi koy bës di dindi lënd yi ko taq nee na nee na nee na nee na nee na léeg-léeg mu bi rëy na de